Thank you.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 yoonu yàlla ak yàlla bi ko liggéeyee. mais bi nga yëgee corona bi ñëw na làmb yi taxaw na naka nga ko dundee. non ba ñu yëgee ni corona bi ñëw na dañ doon wax naan am na amul man boog pour man loolu dañ koy dégg rek Europe la yam comprendre nga ndax ñun fii Sénégal déggoo fi woon ku fi corona dañ doon wax naan feebar bi am mu ngi dox mu ngi law dañ leen tëj frontières yi nekk ci affaire yooyu naan am nañ benn kaaw ak am nañ moodu moodu yu ñëw ak xam nga genre détail yooyu man lépp maa waaw lépp ñu naan affaire yi mooy loolu noonu ñun ak lu mën a xew dinañ bëree ba pare. ndax ku dem ba làmb ji des une semaine ñun daal suñu kër lañ toog naan Macky Sall war naa wax ay vers 17 heures ah xaw ma 16 ñu toog amoon na sax làmb bu amoon. waaw ñuy seetaan fekk gars yi doon ñu wax dañ cee war a jàkkaarloo ñuy seetaan jékki-jékki dégg Macky Sall expliqué na new instant bi dañuy arrêté lépp à partir lundi te moment boobu ñu ngi woon samedi à partir lundi dañuy arrêté làmb yeeg arrêté tëj université bi affaire yeeg yooyu noonu ma ne non lii mënta nekk. sama mag bi ne ma ah état wax na de ma ne ko non lii mënta nekk état boo waxee ñun une semaine. non non ci laa ne xaaral gawuma ko fekk am na ñu nekkoon ci làmb ja ma woote ñu ne ma sax même làmb soq gàmm gay ñu waroon bëri ci dimanche bi arrêté nañ ko. ma comme sagam ñoo ñoo waroon bëri suba moom ñu arrêté ko kon ñun arrêté nañ ko mais ma mel ni kuñ dóor martu ndax ma moment boobu dund naa coono yoo xamante ne dañ naa dañ naa ci loo xamante ne ñàkk naa ci alal boo xamante ne bugguma woon rek lu dul kombaa bi jeex man ma dem xooli leneen léegi bañ ne aj nañ ko mu doon lu metti mais tamit ñu gëm yàlla xam ni tamit jaam ak pexem yàlla ak dogalam jour boobu ñëw nañu fa def fa benn jàkkaarloo après affaire yi aj pour ñun buñ ko ajee ay vers trois mois lay durer quatre mois tombeek affaire kiiwaat ñu dem toog ba nii